bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xam-xam bu rëy ci yàlla duniya du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audu billahi alalim min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu si waat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci aaxiru zaman di jaajafal mbokk yi seetaan yëpp di leen jéggalu ci aaxiru zaman bi weesu xawoon a soj baat bi xoot doosoon moo waral ànduñ ci ak ñu ngi ciy jéggal bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm tey ñu ngi fi am gan gu tedd goo xam ne boroom xam-xam la nekk jàngatkat ci liy xew ci àdduna bi rawatina yàqute jikko yi nga xam ne nii sunu réew jamono yii nii mi ngi fees donte mbaax a fi ëpp donte jikko yu rafet fi ëpp waaye nag léeg-léeg ni ma koy faral di waxee ñi nekk ci mbaax ñi nekk ci yu rafet dañoo noppi dañu ne selaw dañ leen a yar dañ ne nemmu dañ jul yëngatu dañ dul wax dañ jul génn euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci safaan bi di promouvoir ak mbon ak ngóor jigéen ak franc-maçonnerie ak yàqute jikko yooyu noonu li am fit affiché wu di wax di génn ba tax na leen day jàpp euh, day tax ñu baree bari jàpp ne euh, mbon gi dafee bari wala dafee ëpp ci Sénégal fekk mbaax gi moo fi ëpp fuuf ki ñu dalal nag ci wàllu googu lay jàngat Sénégalu démb Sénégalu tey lan moo nu indi tey ñu yegg ba ci état bu fesal mbon ñuy fesal mbon affiché wu ñeme ko lan moo nu yóbbu ci état boobu incha allahu taala danañ ci ànd ak moom ñu bàyyi ko mu nuyoog ñi seetaan ñu dëkk ci ñamale gi dalal ko ñu dugg ci waxtaan wi allah muy Cheikh Madiama Fall Cheikh Madiama salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah je Maxtaar ñu ngi lay nuyu di la ziar di bég lool di am jotaay ak yow di nuyu diaspora bi ñëpp di nuyu ñiy seetaan axiru zaman bi yëpp macha allah. Mm-hmm. dans le monde bisimilah. jërëjëf ma Madiama euh, émission axiru zaman bi nu mujj def ñu ngi doon waxtaan ci mbirum fecckatu Ngor soo Seck doon fóonante ci kaw seen ba dogal tribunal jël na ko ci talaata ji nu génn ba daan leen atu kaso bu ñuy tëdd benn weer. Euh, loolu nag moo waraloon ñu jagleloon ko waxtaan spécial doon ci waxtaan di dénoncé jëf ju bon ju ñaaw ju yées jooju noon le waaye tamit laawaale ci Ngor si sekk di waali nga xam ne fan yii ñu ngi ko gis mu génn di victimiser wu. Sénégal léegi dañoo tàmmu nit day def mbonam def musiba ba kumbaam ba noppi génn di victimiser wu nit ñi naan bàyyi leen ko doomu jàmbur la ak nangam ak nangam mbokk yi kenn ku nekk jug di wax mel ne ñeneen ñi moom nekkuñu ñu doon doomi jàmbur mel ne ñeneen ñi moom nekk amuñuy mbokk ba léegi nit ki daal mën na génn def lu ko neex affiché wu di publier wala di euh, affiché euh, góor jigéen ñi seen i mbir te loolu nëbbatuwul waxoon naa ko ci aaxiru zaman bi weesu bi mbir yi jógee fan yi mu génn wax waxam jooju noonu la di victimiser wu ak di menacer waate sénégalais yi ñi nga xam ne yeewu nañu ci bari euh, wala ñenn ñi sax du ma leen tuddee ñu yeewul ñoo ko tey ñoo jël position pour ne ñu ngi koy défendre ñu ngi jël wax ji di jaxase ñaari bokkul naan waaw ki ngeen naan góor jigéen la ki naan góor jigéen la dafa am ñaar promouvoir góor jigéen ak góor jigéen man mosuma prononcé sama làmmiñ tuddee Wally sekk góor jigéen mosula am du benn responsable tamit ci ànd sàmm jikko yi comme ni ma ko waxee woon ci DTV a génnee ci làmmiñam ne Wally Seck góor jigéen ba mu solee t-shirt ba dénoncé lañ ko def ne mi ngi promouvoir ak ngóor jigéen te ba léegi tamit ci loolu la ñu nekk heure bu defee lu jege lu mel noonu ñu génn dénoncé ko waaye mosuñ ko tuddee góor jigéen ba aw nit génn naan waaw ki ngeen naan góor jigéen bettu leen ko góor nangam ak nangam loolu mosula am loolu jéem a lëndamal xel yi la ak jéema dugal nit ci meer mortu ne yaa ngi ko ci jéem a sang la waaye yooyu yëpp du jàll yooyu yëpp jàll waxoon naa ko ci DTV bi dama ci del si waat ma ci yàgg du ma ci yàgg ndax am na loo xam ne nii la ma waxoon ci àxiru zaman ba bi weesu loolu lay waxaat ba tey fit ñoo ko ko ëpp téeméeri yoon buy jaay fit ñoo ko gën a bari fit lépp lu mu ko jaral ci gars yi di affiché wu ci côté mu leen di promouvoiral ak ngóor jigéen bu bu bu ko jaralee téeméeri jaral nañu junni pour taxaw ne du fi amee du jëm kanam loolu moom jarul sax ñu ci sonn di ci discuter wax ju bari waaye li mujj am nga xam ne ni ci lañ profitoo mën naa ne ñoom ñoo ko def benn euh, ñoo ko tey euh, def benn paanu technique am leen lu affiché wu niroog drapeau góor jigéen ñi ñu ci bari génn di wax ci la ñu profito ndax ñu bari génn nañu naan waaw gis nga defati na lam defoon teeloon naa alerté ne attention bu leen dugg ci ndëgg sërëx ndax li mu jaam bokkul ak la nga xam ne moo amoon li wees woon la li wees woon loolu drapeau góor jigéen la soloon ci kaw seen góor jigéen ñi bind di ko félicité loolu lañ doon dénoncé li mujj am tamit ci nga ci concert am ay góor di fóonante loolu lañ doon dénoncé waaye li nga xam ne moom moo mujj am ci la ñu profito def paanu technique mën naa am ñoo ko tey te loolu laa jàpp sax na ñoo ko tey pour rek sénégalais yi ne waaw gis nga defati na ko man leen noo attention du luy ñuul lu nekk nag këriñ la li mujj am ni moom wu ak la daan am waaye nag profité nañ ci gannaaw gis nañ ne sénégalais yi ñenn ñu ci bari euh, xàmmewuñu euh, janj ak joor xàmmewuñu drapeau góor jigéen ak ñu drapeau góor jigéen ñu profité ci génn wax moom itamit ci la mën a profité génn wane ne waaw du lii du lalee mbokk yi tamit génn nañ ñu ngi koy défendre ba tax na yooyu noonu le nañ ci bàyyi xel tamit euh, borom salaatul fatih day jàngale naasiril xaq bil xaq dëgg dañ koy dimbalee ci kaw dëgg ñun li ñuy wax làmbatuwuñ ko ay preuve la ñuy am lu leer te ko ci kaw taabal ci bu fekkoon ne li mujj am mbirum góor jigéen la woon ni ñu defee woon aaxiru zaman dénoncé ko woote woon journée xeex mbon nga ca mosquée inachevé woo kilifa yëpp ñu toog ñu dénoncé ko lu ni mel tamit la ñuy defaat waaye ànd sàmm jikko koy defa teel a jël matuwaayam wane ne ah attention du loolu kon ñun amuñu problème ak Waly seek ak ma ak Mademba ay ñu ko dàq woy junni yoon laa jàpp na ñoo fi nekk du may déglu musique waaye mënu la woy ba dàq woy Youssou Ndour ci li ma jàpp ñiy déglu Youssou Ndour a ngi fi xam nañu te kenn mësu koo tudd di tudd yu mel nii ci ay LGBT ak di leen jàppale te bu ko doon def mais seexalul sénégalais yi lem sénégalais yi ragaluñ ko ba bu ko defoon ñu dénoncé ko woy juram coon sekk jaar na fi yàlla ko yàlla yërëm kenn tudd ko ci lu mel noonu Omar Pène jaar na fi kenn tudd ko ci lu mel noonu Baaba Maal kenn tudd ko ci lu mel noonu euh, tudd woykat yu baree bari ñi leen di déglu safoo leen ña leen safoo ca lañ ñu nekkoon euh, ñu nekk ca di ca bégal ñi nga xam ne nii loolu moo leen saf ñu nekk ca mais kenn mosu leen tudd ci ay LGBT kii yeneen yu ni mel kon bu demee ba nga xam ne nit ñu ngi ko ciy tudd ay at yu baree baree bare dama yaakaaroon ne ay mbokkam dañoo waroon taxaw ne ko ah xoolaatal sa bopp defaral sa toogaay xoolal sa entourage mooy te ndikul nangam ak nangam mais pas génn di accuser yi dañoo soxor rek génn di menacer waateeg yooyu noonu le pët pët dafa tàqalewul mbaam ak i noppam fii tàppet nekku fi ku ragal nekku fi ku ko fi def danañ ko wax naa ko def te kenn di ko wax fenn la amul loolu pour muy leer ni ma ko waxee woon man Makhtar Sarr sama maam ci daara lañ ko reyee maam Lamine Saaray sama maam ku sa maam dee nag ay noon rey ko doo ragal kaso doo ragal bàmmeel ndax yàgg-yàgg fa ngay mujj muy bàmmeel ñun bàmmeel sax la ñuy gën a sóoraale ko yeneen yi ci des mm. ba tax na yooyu noonu lañ ko bàyyi xel bu baax a baax li fi mag ñi bàyyi woon muy suñ di ko sàmm tey bu demee ba nga xam ne nii Europe ñu nga génn dugal Sénégal ci réew yi gën a bañ ngóor jigéen mais taxawaay moo ko indi te dafay gën a yokk hmm. barki de moo njaay la Occident bi génnee ñett réew nee nañ dañoo bañu ngóor jigéen amuñ tolérance dugal leen ci réew yi gën a radical ci ngóor jigéen Sénégal benee ñu dugal leen ci biir loolu mais lan moo na ko may lan moo tax yeneen réew yi nga xam ne ni tey boo demee diine sax xëy na ñoo ci njëkk a jot Sénégal ci Afrique ñu kenn dugalu leen ci biir réew yooyu noonu la mais dafa amul ñuy bañ am na maam ñu fa nekkoon démb ñu meloon ne Cheikh Alhaaji Omar ak Serigne Touba ak Maam Bokkunta ak Cheikh Alhaaji Malick ñu daan bañ mais seen sët ya tey taxawunu bañ tey nag ñun sëtu mag ñooñu noonu le dem nañu waaye nag am na luñ ñu jàngal bàyyi bàyyil ñu ko fi muy mbaax gi ñu xeexoon gàddu jaas yi xeex ba mbaax googu ñu indil na ko ñun gàddu wuñu jaas yi mais danañ gàddu suñu làmmiñ ak suñu pas-pas yu dëgër ngir sàmmal mbaax googu noonu le suñuy doom ak suñuy sët bañ jot ci ñun xëy na mën nañoo mucc mën nañoo raw am na yoo xam ne kenn mënuñu cee dugal mais nag suñuy doom dañoo xamul ëllëg fan la ñu jëm tey bu demee ba ba góor jigéen yi nga xam ne ñoo nekk France seen kuréel ba ajuma ji weesu la ñu génnee benn communiqué bu doy waar communiqué lañ génnee di rafet rafetlu décision boobu noonu les européens yi jël pour dugal Sénégal ci réew yi bañ góor jigéen euh, ñu félicité leen ci mais ci biir communiqué bi dañ ci wax lu doy waar nañu sàkk woon ci ministre intérieur bu France pour ne na fexe ba euh, xalif général Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour bu mu duggati nañ ko fa tere sëñ Abdourahim nañ ko nañ ko tere bu mu duggati France tudd yeneeni i yu nekk ci réew mi ne nañ leen tere buñ duggati France même kuréelu góor jigéen yooyu noonu lañ may tuddee bàjjana góor jigéen yi ñoo génnaat ne léegi lañ sàkk woon ci ministre intérieur tey ñu ngi koy sàkk ci gouvernement du Sénégal mooy ñi nga xam ne ni ay oustaz la koy imaam ak sëriñ yu radical bañ ngóor jigéen di woote ci jigéen ñu def leen yéeg nañ leen jàppee ay terroriste dégg ngeen ay terroriste nañ leen ko jàppee ñu sàkk loolu yamuñ tamee ñu képp kuy jàppale ngóor jigéen ci Sénégal nañu jug résister nañu jug taxaw fippu taxawal benn collectif boo xam ne dañ koy tuddee Free Sénégal góor jigéen yi ca France ñooy joxe ay directive fii ci Sénégal ci ñu leen di ñuy jàppale góor jigéen yi ak góor jigéen yi nañu taxawal collectif Free Sénégal collectif boo xam ne dafay libérer Sénégal maanaam Sénégal daal dañ ko jàpp otage ci leen bañ góor jigéen ay waay Samba fii ngeen ñuy fekk na ma ko waxee woon fii ngeen ñuy fekk waaye nag loolu yëpp gannaaw euh, daje ànd sàmm jikko yi xam nga mbóot yëpp nag ci lañ génne ndax waxoon naa ko ànd sàmm jikko koy dafa génne yoo toog sam wis ko mbóot yëpp moo tax mbóot yi di lappi-lappi boobu ba léegi waaw te mbóot yu mag yee ca France nag ñoo tàmbali lappi-lappi ba ci mbóot yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal waaw yàgg-yàgg tamit nag bàyyi ni ko rek mbóot moom boo ko dóoree yoo toog si muy ka dal toogal di ko seetaan rek yàgg-yàgg dafay bàyyeeku ala kulli xaalin ba tax na loolu nga xam ne moom la ñu sàkku talaata ji weesu ci lay daanelee le témoin journal le témoin dafa def révélation bu doy waar Cheikh Madiama la témoin nee na góor góor jigéen yi dugal nañu deux milliards Sénégal deux milliards dem leen ngeen gëstu ji journal la témoin moo ko bind site yu bëri Sénégal ba yeneen i site reprendre nañ ko ne góor jigéen yi dugal nañu deux milliards Sénégal lan moo tax ñu dugal ko fi mooy ku leen mën a defal promotion ci woykat yi ci ñi nga xam ne influenceur lañ ci ñi nga xam ne ay porteur de voix lañ donte journal bi nee na amagul benn woykat ak porteur de voix ñu mel noonu koo xam ne nii gisagum nañ ne nangu naa jël ci xaalis boobu pour defal leen luñ bëgg benn magasin daal lañ gis boo xam ne accepté na moom pour war leen defal promotion ci mois bi nii loolu noonu la <laughs> bu euh, keroog bi ma gisee journal bi bind wala wala euh, bàjjana goor jigéen ñi ci France bind di menacé waatee di wax ne nañu taxawal firi Sénégal ak góor jigéen nañ fipp ci laa ne ba mu leen bett ngeen xëy rek gis ci médias yi ñuy attaque ñi ñi ñi ñiy xeex ngoor jigéen bu mu leen bett te ba léegi bu mu leen bett tey muy Makhtar Saaro Babacar Mbuubo Adama Mbuubo Abdou Karim Guèyeo ñu affiché wu ñëpp ci xeex mbon bu mu leen bett aw nit génn di leen def di leen attaqué te te dèjà tàmbali na yaa ngi gis ay plateau te la ñuy invité nit ñuy attaqué ànd sàmm jikko yi ñan ñooy ànd sàmm jikko yi mooy xalif général yi ci réew mi yëpp imaam yi ci réew mi yëpp nitu diine yi ci réew mi yëpp waa jàngu bi waa bois sacré association yi ONG yi kuréelu imam yi ñooñu ñooy waa ànd sàmm jikko yi léegi aw nit ñi ngi taxaw di leen attaqué di daal ci seen kaw gis naa ji kenn koo xam ne mi ngi wax ci benn plateau naan a a wax waaye du waa ànd jikko yi moom sax ñuy jikko yi première ñi ci nekk mooy mooy xalif généraux yi ci réew mi lii ñu demandé pour ñu criminaliser ngóor jigéen xalif généraux yi ci réew mi yëpp ñoo ko signé moom xamul luy ànd sàmm jikko yi waaye nag il faut attaque dana ñëw te loolu ñun sóoraale nañ ko yàgg nañ ko bàyyi xel bàyyi nañuy xel attaque bàyyi nañuy xel plainte bàyyi nañuy xel menace bàyyi nañuy xel lu nekk moo tax ñun ba ñuy départ ànd sàmm jikko yi la ñu ñun ñëpp nañ jënd suñu càngaay ak lépp lu muy àndal ñu jël ko di ko bokk fu ñu jëm loolu pas-pas la ba tax na kon bu yeboo nañu xam ne Sénégal du ñu bàyyi lenn li muy jàll lu mu laaj nag dañu koy def lu mu laaj dañ koy def ba tax na yéen nii mënuñoo yëngal sax bu yeboo ñu yeewu ci bu baax a baax Sénégal gi moom ah xaw ma génération yi ñëw de fi mu toll nii ngóor jigéen ca àll kutiya ca àll kutiya gis naa benn journal bu def benn jàngat xaw ma ñan a def sondage bi ne gis nañu Sénégal yi quatre vingt dix nangam pour cent dañoo bañ a ngóor jigéen man leen na gën a yokk te dafay gën a yokk incha allah taala mbon gu nekk dugg na fi ñu toléré ko mais ngoor jigéen moom ba léegi sénégalais ni ngi taxaw rek jot jotu ne soccet te nag bés bu ñu bàyyi ni ko tuuti rek dana am prof loolu yu ñu jaar pour nekk loo xam ne nii dootuñ ko bañati ndax foofu la ñuy tàmbalee dañuy tàmbalee dootu la métteeti dranseetu la sama yoon nekkul ci ñoom waa kay léegi buntu ubbeeku na ci la ñuy jàllee ba légaliser ko góor jigéen ñi nekk ci mbedd mi fonanti te lool nag wala iyaadu billah bu demee ba Sénégal ñu ne góor jigéen ñi ñu ngi fiy takkante fonanti c'est bon ñu sulli suñ bàmmeelu mag ñëpp suuli leen feneen mukk du fi mos a am Sénégal mbaax a mbaax moo moo suuxat suuf si mag ñi fi tëdd mais yenn yi du jàll il faut te nag lu mu laaj nañ ko def parce maa ngi invité sëriñ daara yëpp euh, ma tey rek maa ngi ciy xalaat ma jama baal ma maa ngi guddal tey rek maa ngi ciy xalaat euh, ma ne jar na ñu ñu woote journée nationale pour defi dog jëmee ko ci LGBT yi ñi leen di jàpp ñi leen di jàppale jar na ko te loolu noon la wax naa ko danaa ci xalaat bu soobee danaa ci dox yi jéego ndax mbir in il faut baatin dugg ci du nekkati waxu kese nag waaw waxoon naa ko ci aaxiru zaman bala weesu il faut baatin dugg ci course yeeg kaamil yeeg dog yeeg lépp lu gars yi am ci bagage il faut ñu génne ko def journée boo xam ne dañuy jëmmaloo gaañ ci baatin mu bañ a yemati rek ci wax ndax da koy jar nag da koy jar mais du seetaan yàlla alag nu comme nu mu alage woon xeer yi weesu donte du ñu alag comme na mu leen alage woon mais musiba catastrophe yi ñu dund ci réew mi réew mu naqari mu métti ndox yu lu nekk ñu koy jàmbat accident yu bari mais yooyu noonu la ay musiba la ne nii ngóor jigéen daf yaa ngi dimbale ñëpp yàlla ñu yàlla defal sutura yàlla musaluñu seytaane ki pexem loolu moo nekkoon ñamale gi du génn sunu thème ak li ñuy waxtaane ndax tey li ñuy waxtaane xañ ma jama mi ngi jëm ci wàll gu mel noonu nan la ñu def nan la ñu def tey ba yegg si fii nu yegg si franc-maçon yeeg euh, kuréel yu ni mel yan stratégie la ñu teg ba yeggale sunu société fii mu yegg ak àdduna bi sax mën naa ne ci cadre général nga xam ne dañu leen a jëlee ci liñ nekkoon indi leen ci beneen étape macha allah suñu mataar ñu wax ci bu fekkee temps bi dinañu ko may. Mhm. organisation góor jigéen ñi ci àddina bi dañoo def benn sondage en 2010 le monde entier dëkk yëpp ñu ne nañ def sondage xool yan dëkk ñoo gën a accepter góor ak yan dëkk ñoo ko gën a rejeter bi ñu defee sondage boobu Espagne moo génn en tête avec 78 pour cent maanaam pas ñu nekk góor jigéen mais ñu accepter ni góor jigéen mën na fi nekk sans problème nangam nangam. mu tef ca Hollande nekk soixante dix sept pour cent France Belgique Allemagne Angleterre ñi ngi nekk entre soixante quatorze soixante quinze soixante seize pour cent les États-Unis Amérique gi ngay gis moo leen tane mi ngi nekk soixante six pour cent waaye ñaari réew yi ko gën a rejet ci monde bi ñaari réew la mooy Afghanistan ak Sénégal trois pour cent la seen choc nag Sénégal la nee nañ Afghanistan ça se comprend c'est des sauvages des ñu amuñu civisme nangam nangam noonu la ñu leen traité mm. mais ñu parce que Sénégal ñoo njëkk jàng en Afrique Sénégal ñoo gën a civilisé en Afrique Sénégal ñoo gën a démocratique en Afrique n'est-ce pas ñu ubbeeku lañ nekk ñu nit ñu tëju comment est-ce possible que Sénégal ñoom rejeté ko comme ça ñu mën benn enquête xam nga nit buy def dara. Hmm. seytaane buy xeex da ngay xam méthode yi muy teg ak plan yi parce que ñoom dañuy tëb rek def ci coolo yi lépp dañ koy étudier ba pare jàngat ko ba pare xool yan méthode la ñuy teg pour loolu ñu egg ca mais liggéey bi du nekk rek liggéeyu génn di wax ci mais benn travail psychologique la bu ñuy def ci nit ki ba mu accepter ko inconsciemment ou consciemment. bi ñu defee sondage boobu ñu xool ñu ne léegi Sénégal ñu ne mais pourquoi Sénégal rejeté ko. loolu nekk beneen enquête boo xam ne ay sociologue ñoo ko def. bi ñu jógee def enquête bi dikk ni leen Sénégal li tax ñu rejeté góor jigéen mooy góor jigéen tabu la mooy duñ ko bëgg a waxtaanee duñ ko tudd bu ko xale tuddee dañaan ko tëjee sa gémmiñ lu bon li ngay wax boo dem bu ñàkkee pexe bi di ko tudd dañaan sax borom ñaari tur waaye duñ nangu sax tudd tur yi. ñu ne kon tabu boobu moo ko bloqué. le fekk que duñ ko waxtaanee moo tax ubbeekuwul moo tax yaatuwul. ñu ne mais léegi nu ñuy def ñoom ñooy wax loolu ñooy waxtaan ci seen biir mhm. ñu ne ce qu'il faut mooy que nañu fexe ba tabu bi teggee ko maanaam si góor jigéen ñi Sénégal yi di ko waxtaanee mhm. ñu ne mais loolu naka la ñuy def ba mën ko parce que chaque chose day am question chaque réponse day am question ñu ne non dañ leen di provoquer dañuy yebal génn kilifa rek mu ñëw cuq leen ci wax jooju bu ko defee coow leen a tàkk mhm. ci la Obama ñëwee Sénégal ni asalaamaaleykum Sénégal fu ngeen toll ci góor jigéen rek coow li tàkk depuis boobu ba léegi la évolution bi am bi ngay gis ci góor jigéen mu am bi ñu commencé nag di wax yëguñu ni ñun ci suñu bopp ñoo attiré attention jeunesse bi ak nit ñi ci góor jigéen léegi xale yëpp il se pose des questions ñen ñooy góor jigéen ana góor jigéen yi ñun léegi léegi nag léegi nag c'est le moment maanaam comme ñëpp a ngi attentionné wu di leen déglu def leen promotion bi gaaw tontu leen leen mais lu ngeen leen tontoo di ngeen di wax de da leen di tontoo ci musique bi ci film yi ci cinéma yi ci théâtre yi mooy da ngeen di fexe ba théâtre bu nekk film bu nekk woykat bu nekk euh, émission bu nekk nay am góor jigéen góor jigéen bi nay ku baax nga xam ne mentalité nit ki ni mu rejeté góor jigéen bu ko xale bi di seetaan bàyyam bii xëy na mënoo koo changé waaye doom ji moom nekk xale di seetaan film bu yàggee dootul bañ góor jigéen dootu ko rejeté xam nga xale buy seetaan film c'est un travail psychologique xale buy seetaan dara film benn série moom seetaanul film réalité la du koy dund moo tax da ngay gis ñuy seetaan film di jooy da ngay gis ñuy seetaan film di def lu nekk am naqar te du doo nelaw ndax film dong la parce que moom nekkatul ci moom film mais réalité la lu muy dund la mm-hmm. léegi nag film bi bu ñu la ci wanee kenn koo xam day am lu ko metti nekk ku baax ba pare ñëpp bañ ko di ko toroxal muy sonn di daj coono ba sa xol bi jeex ñu tëj ko ci kaso bi benn góor jigéen ñëw yëf jóge fële ñëw sauvé ko génnee ko mm-hmm. yóbbu ko këram dimbali ko sa xol bi sedd papa ji yaay ji mën ñi koy seetaan ak doom ji mën ñi dafa baax diw la moo ko génnee xamaguñu sax góor jigéen la diw dafa baax ñuy wax loolu seen doom ji quoi doo baal diw ñu ciy discuter bu ñu discuter bu gis ñoom ñëpp ñu apprécier ko ñu soog a nag waa ji di feeñal ndànk ni góor jigéen la bu ko defee fekk na cofeel gi jiitu na ci moom c'est aspect boobu c'est très important parce que nit ki mooy li koy dugal te du ko yëg mooy sa xale yi lii tax ñu dem ba accepté ko dootu leen def benn effet te du ko yëg parce que seytaane dafa bokk ci liggéeyam bi gën a am importance mooy fexe ba maanaam démystifier benn mbir doolu dindi tabu yi dindi diis diis ya ca moo tax nag nga gis cinéma yi waykat yi bu ñu leen wanee gis benn waykat boo xam ne ay millions de xale dañ ko bëgg ñu wan la Wally ay millions de jeunes bëgg ko wala beneen waykat bu mën a doon ay millions de jeunes bëgg ko kooku boo ko gisee mu saafonteeg góor jigéen ñi mais xale yooyu bañoon góor jigéen dootuñu ko bañ ndax cofeel gi ñu am ci waykat boobu moo tax hmm. bëgg gi ñu bëgg ki nga bëgg ku ko bëgg rek nga bëgg ko parce que boo gisoon benn waay boo xam ne tey neexu sax jikkoom neexu la comportement am la nga gis ko benn bis ñu la ni mu bëggee sa doom ji diw fu mu ko gis da koy fob yóbbu rek automatiquement sa sa kii ci waajooj day commencé di soppeeku moo tax nit ka mu bëgg ku ko bëgg rek mu bëgg la léegi nag millions de personnes millions de jeunes yi nga xam ne bëgg nañu ay waykat bëgg nañu acteurs yu cinéma yi bëgg nañu acteurs yu théâtre yi ñuy seetaan bu ñu gisee ñooñu di saafoonte góor jigéen ñi bëggante ñoom xeen bi ñu amoon ci góor jigéen wala bañ gi ko doon bañ dafay wàññeeku mu nekk boo xam ne ñun duñ ko yëg maanaam jeunesse bii ñëw ñi ngi accepté góor jigéen te ñun duñ ci rendre compte. Hmm. moo tax ñuy def loolu te boo beneen bi topp waa ji bi mu dikkee néewu leen euh, góor jigéen dana fi nekk dafa am benn gàpp bu mu tëb. Hmm. accepté loolu ñoo xam ñun nangu nañ ko te yëguñu ko néewul góor jigéen du fi nekk daf ni góor jigéen day am kayit hmm. ñun ñuy kaas naan du ñu am kayit kenn du leen voté assemblée nationale ko kon yow waxtoo wax yi dana fi nekk wala du fi nekk inconsciemment ñun nangu nañ ñi dana fi nekk waaye du am kayit la ñuy wax. te nuñ ko yëg bu ko defee loolu dafay nekk ci ñoom benn avancé boo xam ne ñoom avancé nañ ko ci sa kaw te yow doo ci rendre compte mm-hmm. moo tax liggéey boobu manipulation yooyu mm-hmm. mooy li gën a dangereux ñoom nag aspect boobu la ñuy liggéey ci loolu lañ nekk depuis boobu ba léegi mm-hmm. léegi nag dañuy dem ba dañuy dugg ci détails yoo xam ne parfois am na yeneen aspect parce que dinañ xool même naka la ñuy def ba nit ñi jeunesse bi nekk ay góor jigéen biologiquement maanaam ñu jox leen ay lekk ay ñam ay diw yoo xam ne bu koy diwoo daf leen di jëmee ci ngóor jigéen xam nga loolu boo ko waxee bien sûr moom la ñuy wax le film glow ah bon ay produits la ay estrogène la xam nga li différencier góor ak jigéen. Hmm. du jëmm physique. li tax góor am muscle am karaw te jigéen du ko am li tax góor baatam nekk baatu góor te baatu jigéen melu ko li tax mu am sikkim kawari dënn ay ay hormones la ñuy wax ay androgène ay estrogène moom mooy hormone mâle moom la ñuy wax l'hormone mâle les androgènes moom la ñuy wax l'hormone femelle moo tax jigéen yaram bi rond doo gis muscle yi du am kawaru sikkim muy am ay wen parce que benn hormone la rek bu ñuy wax euh, estrogène androgène. léegi nag bi ñuy soog a commencé ñoom dañu doon gis ni euh, hormones yooyu nit ku am agressivité nit ku metti ku naqari deret bu ñu ko daan jox mu ko nee naan dañuy gis ni day dal dafay commencé di soppeeku ñu dem ba si ñu gis ni non seulement loolu parce que les androgènes les hormones mâles mooy mooy indi la pilosité moom la ñuy wax karaw. le mou de la voix baatu góor gu jigéen baatu góor ni mel noonu jigéen suufu graisse der bi dafa am benn couche de graisse moo tax doo gis muscle yi góor na parce que hormones yooyu moo tax muy am couche de graisse boobu góor nag comme hormone boobu barelewu ko tuuti la ci am hormone jigéen moo tax moom muy am ay muscles yu moo tax ni jigéen du ko am ñu li ñu koy utiliser ni buñ ko joxee ñu gis nañ non seulement dañuy dañuy dal agressivité bi nekk ñoom day dañ mais dañuy raisonner dañuy xalaat comme jigéen même seen pensée day commencé di changer day modifié wu seen seen profil psychologique seen profil psychologique dafay commencé di déformé wu. ñu am aspect attirance bi tuuti ci jigéen. ñu dem ba si ñu découvrir non seulement mën nañ ko utiliser mais transgenre yi di ko utiliser les transgenres mooy ñi nga xam ni passé nañ góor jigéen mooy góor jigéen góor yi nga xam dañuy dem soppaliku nekk jigéen carrément. nga xam ne bu ñu la waroon concours mi transgenre ñun la kii góor la woon yow di nga teg sa loxo ci kaamil gi ñu du dëgg mosut a doon góor. te pourtant góor la day dem ba léppam. dama yàlla baal awraw yi sax dañ koy dindi defaral ko awraw jigéen mu am ay ween mais di très mouché comme jigéen boo ko gisee da ngay waat ci yàlla ni ki jigéen la te musta te pourtant góor la mhm. lenn rek koy wutali jigéen mooy du mën a ëmb parce que yorul biirub jigéen biirub góor la yor mhm. loolu ñoo ñuy wax ne transgenre transgenre yooyu nag commencé nag jël pilule yooyu ñu koy def ay pilule ñu tudd ko les film glow maanaam le film glow ça veut maanaam attirance jëm ci fi nga ne perfectionner sa jëmm c'est ce que ça veut dire mooy nga perfectionner sa bopp nga defaraat sa jëmm nga am as aspect bu gën a bu la gën a neex et cetera et cetera bu ko ñooñu bu commencé di ko consommer ñu koy gis ni ñuy soppeeku ay jigéen di am esprit jigéen di am mentalité yoon yu ñu mel lii buñ ko utiliser ci ay produit ci ay lekk ci ay produits cosmétiques dafay dañuy donc ñu ngi def benn promotion wu ñu ngi liggéey pour nit ñi transformer leen ak ci jëmale leen ñëpp ci ngóor jigéen mm. mu nekk nag ci ay produit yoo xam ne ay lekk la di gis ay diw mm. ay produits cosmétiques yoo xam ne ciy bind film glow nangam glow foo ko gis rek bàyyi nangam glow maanaam waaw G O L O W G mm-hmm. L O W glow mm. en anglais veut dire perfectionner avancer rafetaat defaraat mais ay pellule la yoo xamante ni si ay ay acides aminés la ay vitamines la en réalité yoo xam ne c'est juste des des des et des estrogènes donc loolu tamit dafa nekk ci li nga xamante ni si dañ koy liggéey mooy yi gën a dangereux. Mm-hmm. parce que aspect liggéey bi gën a ñoom façon bi ñuy méthode bi ñuy doxalee yi gën a dangereux. Mm-hmm. mooy aspect biologique boobu man personnellement moo ma gën a tiital. Mm-hmm. parce que damay gis ni boo xoolee génération yi mujjee judd xool ni ñuy mel. bare na tey lu la góor di romb ngay gis góor la am jigéen la. bi doo gis yaramu góor. da gis mu ron di très mouché wu di xelam ni muy raisonné sax da ngay xam ki nga naan kii est-ce que góor la hmm. ñoom loolu amuñ ci conscience yëguñu ko te pourtant mi ngi nekk loolu yëpp produit lekk koy def dafay nekk ci ay produits yu ñuy lekk nekk ci ay produits yu ñuy diwoo ah bon effectivement am na jenn ndaw soo xam ne am na ci produit yu jógee Amérique mhm. dafa ma ko dafa dégg na ma ko mhm. mu envoyé ma mu gis ko ñu def ci glow moom mu envoyé ma ko ni ma yëpp foto ko ni ma xoolal ma ko ma ne ko yii moom moom la neexul ba neexul ma ne ko xëy na bu dee jigéen la je ne sais pas ba xam munu ma wax ni bu dee comme yow jigéen nga munu ma wax waaye daal yii mooy diw yi nga xam ni moom mooy moom mooy am euh, hormones yooyu mooy am androgènes yu bëri yooyu nga xam ni mooy tax ya nit ki jigéen ñi bu ñu koy diwoo seen yaram day soppeeku seen teint day soppeeku dañuy gën a nekk jigéen en quelque sorte dañuy gën a nekk jigéen yooyu nag dañ koy utiliser donc dafa bokk ci yi nga xamante ni sii dañ koy utiliser pour gën a avancer ak ngóor jigéen gën ko développer parce que seytaane dafa bokk ci objectif final mu fexe ba adduna bi ñëpp nekk góor jigéen bu ko mënoon te ji fekkoon yàlla dama naan am na luy xëttu xolam bu fekkoon yàlla kuy mer la dama naan luy xëttu xolam xam nga li ngay gis léeg-léeg ay dof yu taxaw naa laan góor jigéen fan la yàlla wax ci alxuraan ni araam yu kenn xamul sa sa xol bi sax day jeex <laughs> ma ne ko góor jigéen nekkul ci cadre bi bokkul ci logique bi dafa génn gàpp nekkul cadre sax araam dagan ak yooyu daf ko génn diine ataxtuuna zukraana min alalamin wa tazaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum xawmun haaduuna yéen ay désaxé ngeen loolu leen yàlla wax yéen da ay déséquilibré ngeen moo tax euh, góor dañ ko boole woon ci ci trouble chichique yi dañ ko ci xeetu folie yi dof yi maanaam criminel euh, pédophile euh, un sadique kuy rayaate xeetu trouble yëpp trouble chichique yi dañ cee boole woon góor jigéen mais ñoom ñoo ñëw dindiwaat ko ci waaw bàyyi ko yow boo takkee ñaari soxna ñun la li nga def lu ñaaw la takk ñaari soxna nga takk xale bu jigéen bu am 16 ans ñun la yow li nga def pédophile nga da ngaa takk xale bu jigéen bu am 16 mm-hmm. nga dem fekk góor li lëng si kiimam nga takk ko ñun la li ko def lu baax la lu rafet la mm-hmm. lan moo dal nit ñi xanaa loolu ab dof <laughs> lan ban ban façon xeet nit mooy mën a àtte loolu ban logique mm-hmm. keroog maa ngi koy wax ban ban intérêt moo nekk ci góor jigéen ban apport économique la am góor jigéen lan lay apporter ci ci ci ci économie euh, réew mi lan lay lan lay def ci santé lan lay def déedéet amul benn njariñ amul benn njariñ lan moo tax nag ay état yëpp di ci ŋat-ŋati di reyante pour pour saxal ko pour lan parce que Iblis moo leen coaché en personne mm. mu ñu nekk ay kuréel yoo xam ne franc yi ñoo nekk seen ginnaaw mm. parce que ñoom seen objectif loolu mooy pervertir le monde donc perversion boo nga doon wax ci ci àddina bi mm. daf ci bokk benn partie la ci góor jigéen ci boo xam ne moo lay def bu mën a sànq doomu aadama yi mais ñoom mm-hmm. dañ koy xeex ci anglais yëpp mm-hmm. dañ koy xeex socialement dañ koy xeex psychologiquement mm-hmm. dañ koy xeex spirituellement même mm-hmm. donc dañuy utiliser form yëpp pour combattre benn affaire pour pervertir xam nga mm-hmm. seytaane dafa gëm banaliser banaliser mooy li forme bi gën a efficace pour saxal dara ñaawteef boo bëggee mu rafet rek saxal ko banaliser ko gis nga keroog dama koy yeesaay dama koy xale yi di ma ree ma leen bu bu njëkkoon góor gu sol pantalon les années quarante vingt les anne vingt góor gu sol pantalon ñaawteef la woon danaa ci ñëw ndax côté boobu lu am solo la. Mhm. ci ci col yi nga xam ne waxuma sax euh, ni ñu jógee ko ci nite ba yegg léegi ci niteer mhm. euh, yi. fii ñu yegg nii ci mbirum góor jigéena lu ci aju mais da ci wax lu mat a bàyyi xel. Mhm. mooy mbirum lekk yi naan yi li ñuy diw ak ni mel. Euh, tey boo xoolee démb li taxoon société bi nekk société boo xam ne da ngay gis góor. xam ne góor a ngi nii mu wax. Ah. nga gis jigéen xam ne jigéen a ngi mu wax. Mm-hmm. Euh, lépp lu ñuy jëfandikoo ci nun la nekkoon mm-hmm. daaw ñu jëggaani lekk mm-hmm. du ñu jëggaani naan du ñu jëggaani dara mais tey euh, li ñuy soxla yëpp dañ koy jëggaani te li nga wax noonu bu dee ca biti tey am na ñu xalaatu mën a jël yenn hormones yi def ko ci yenn mbir yi pour nit ki yaramam di changé ba xelam mu mën cee duggaale lu mat a xel la ba ci xale yi meew yi ñuy naan ak tout sax soo gisee suñ borom euh, jël jigéen defal ko dund def ci weenam dund doomam Euh, dafa xam ne nit mooy nàmpal nit mu nite. Mm-hmm. nit meew mu nekk ci nit. Mm-hmm. dañ koy nàmpal mu nite. Mm-hmm. mais bu fekkee ne nit ki léegi jël nañ meewum xaar meewum bëy meewum nag jox ko ko. mais léegi kooku lu mu mën a doon. tey li nga xam ne moo doon soppi xale bi tey mu am jikko. Euh, damay ñëw rek jàngat li nga wax pour lu koy dëggal. ci yi nga xam ne yu nu jege la. Euh, dañ doon wax ne bu fekkee xale bi amagul deux ans boo ko joxee meewum xaar day am effet ci moom. xale bi da ngay ñëw mu toog léegi ci mbedd xale ngay romb ci mbedd corne oto dañuy daw këf ko waaye du daw mm-hmm. jikkoy xar la jikkoy xar la xar ngay ñëw corne oto ñu ñëw dàq xar bi mu soog di jóg mm-hmm. léegi xale bi bu fekkee meewum xar lañ ko nàmpal mën nay fo ci mbedd mi oto corne du daw bu dee meewum nag lañ ko man nàmpal mën na xëy rek précoce tol na ñëpp mais zéro xel ku ne cere ji saf na laa boo sàgganoon mu mbëkk la bu nàmpee meewum bëy kenn du dégg fu mu toll di wax loolu nga xam ne jàngal nañ ko borom xayaa xayaatul xayawaan mooy wax lu mel noonu mm-hmm. ne xale bi fekk amagul deux ans meewum loo ko jox mën na am effet ci moom mm-hmm. bu fekkee ne meew moo mën am effet ci xale bi amagul deux ans ñu jox ko ko mm-hmm. kon li nga xam ne ñi nga xam ne dem nañ ba gis ne nit dafa am lu tax góor di góor am lu tax jigéen di jigéen science dem ba découvrir lu mel noonu ñu jël loolu di ko utiliser pour bëgg def ko góor kii nii ñu def ko mu niroog jigéen bëgg def ko jigéen kii mu niroog góor mais na nga xam ne da ngay dem fay ñu defal la ko. mais ñëpp bëgg nit ñi doon loolu niroog ñoom. mais mën nañ ko yombal ci beneen façon. boo xam ne jaratul ngay dem di fay mais dañuy ñëw jaay la lu yomb nga jënd ko. yaa ngi muy mën na nekk sax comprimé booy naan mën nañ ko def ci ay. comprimé ci vaccin yi ñu lay vacciné. ñuy xale yi mën na si nekk. tey boo xoolee xale bi nekk Europe. Mhm. xale bi nekk États-Unis bu mhm. Sénégal dafa am différence. mais bien sûr exactement exactement xale yi juddoo Europe. Sénégal mhm. dinañ gis différence bu am ci ñoom da jaaxal na waajur ñaan xaw seen euh, garab yi ñu leen di jox la xaw ma vaccin yi la xaw ma fekk yooyu yëpp am na yoo xam ne nii dafay am effet mënu la ñàkk léegi nag effet yooyu nga xam ne moom ngay am mooy lu raglu li nga wax mhm. tey bu demee ba nga xam ne am na ay produits yoo xam ne mën nga koy diwoo mu lay yóbbu ci jigéen te nga nekk góor mhm. yow góor mën nga koy jigéen mën nga koy diwoo mu lay yóbbu ci góore mais day da gis jigéen joo xam ne physiquement nii jigéen la mais xelum góor la yor. exactement exactement <laughs> xelum góor la yor. Mm-hmm. lan moo ko yóbbu bu njëkk ba mu nekkoon jigéen ji yor xelum jigéen mm-hmm. mais mu xëy rek. Mm-hmm. mbirum góor neex ko. sol colu góor dox ni góor ñi doxee jël boppam wat ko. <laughs> góoray wat boppam. lan moo ko yóbbu noppam bëggatul takk jaaroo. bopp ba jël na ko def ko nu ko góor di def. baram ko lan moo ko yóbbu ci étape boobu. jigéen góor yi lan moo ko yóbbu ci état mu dem ba bëgg xalaat bënn noppam pour war a nekk góor te nekk góor mm-hmm. mais bënn noppam mooy lugam mm-hmm. lu ko yóbbu ci état muy xalaat bënn nopp mm-hmm. nun nga koy toppee ba mu nekk yu bare bari mu nekk loo xam ne lu doy doy waar la euh, waaye tamit lu mat a bàyyi xel effectivement mooy li ñuy jëfandikoo fan la ñuy yóbbu effectivement parce que euh, booy xeex benn biir ñoom bu ñuy xeex benn biir mooy loolu duñ ko xeex rek ci benn flanc dañuy fexe comme politiquement mm. économiquement xam nga temps yële ambassadeur bu bu Canada ñëw daal bépp góor jigéen bu nekk Sénégal bu am projet ñëw ñu financé mm-hmm. xam nga loolu c'est xale yoo xam dañuy damaa war a dem déclarer ni góor jigéen laa ndax ñu financé mm-hmm. naa xale yoo xam dañuy damaa war a dem man ni góor jigéen laa ndax ma ndax ma tukki génn Sénégal. Mm-hmm. mais loolu c'est grave ça ma bokk na ci yi ma tiital. bokk na ci yi ma gën a tiital mooy moyens financiers yooyu nga xam ne am ah, nañ ko. waaw loolu la ñuy def mooy comme li nit ñi am problème mu ndox mi ñu sangoo. te ki amul ngor ak diine nooy def. <laughs> exactement c'est ça le problème donc tey jii kon point bu dangereux lañ nekk situation bu complexe lañ nekk. boo xam dafa laaj d'abord ñu xalaat xam ñi seen métode bi ñu bëgg a jaar lan la. Mm-hmm. ñu xool naka lañ koy déjouer. Mm-hmm. bu dut loolu mën nañ continuer di wax liy yàqu continuer di yàqu. Mm-hmm. parce que te liy yàqu ñu yëguñu fi muy dikkee. te ñoom mën nañ la eh, tegal fi la benn kii coow nga nekk ci coow loolu pour que ñu mën a doxal li ñuy doxal ci suuf. loolu la ñuy def xam nga manipulation bi ñu def Edouard hmm. Bernays def ko Edouard Bernays c'est le père de la propagande hmm. dafa wax ni la manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est nécessaire dans une démocratie hmm. nous sommes gouvernés nos idées formées nos goûts éduqués nos esprits suggérés par des gens dont nous n'avons jamais entendu parler maanaam mu manipulation bu ànd ak xel bu tegu ci xel ak méthode bu ñu réfléchir bi ngay bi ñuy def ci ay nation ne loolu lu lu war la ci ab démocratie pour nga mën a maintenir ay peuple mën leen a contrôler moo tax mu ne ñun dañuy dañuy manipuler suñuy xel dañ koy contrôler suñuy goût dañ koy tàggat suñuy xalaat dañ koy suggérer par ca ña koy def ñoo mosoo leen sax a gis mu ne ñooñu ñooñu yor dëgg-dëgg pouvoir bi. ñooñu ñooy mani manipuler les masses. Bernays dañuy wax ni mook mook mook Machiavel moo gën a dangereux Machiavel moo doon manipuler da ngay naan di il est il a des idées machiavéliques. Mm. jëlee baat boobu. Machiavel moo doon manipuler moo doon rouler prince yeeg buur yi di leen nax di leen dugal ci lu ko neex. Mm. mais moom dañuy Bernays moo gën a dangereux Machiavel parce que moom population yi lay lay manipuler. Mm. moo tax manipulation yi mooy aspect bi nga xam ne c'est très important ñu bàyyi ci xel. mais góor jigéen. moom noonu la ci seytaane taxawee ci àddina bi yëpp ci tënk ko mhm. pour bëgg ñu avancer pour ñu pour nga xeex benn mbir nag mhm. foog nga taxaw pour nga yàq xeet pour nga yàq société xam nga maa ngi lay wax ni la banaliser bi banaliser bi banaliser bi banaliser bi mhm. tey lu ñu indi ci col ñu jógee ko exactement pantalon dafa nekkoon lu ñaaw ci góor xaram góor gu ma masaanu sol pantalon dem paalin sàkkal wala ndëngur wala ngiig wala yaara daxaar dañ lay yuux ay kii moo diw ay doomu diw ji sànku na pantalon la sol mu nekkoon catastrophe tubaab la waaw tubaab la. Mhm. mu jógee ndar ñëw rek sol pantalon. waaye bu saxee bu ñoom ñu continuer rek saxal pantalon pantalon ba mu jigi ñu miis ko ba mu jigi rek nekkatul dara mu mujj. Mhm. ñu dem ba mu jigi léegi tubaab yu jigéen yu jëkkee xam nga kooku Chanel benn tubaab la benn boo xam ne la moom lañ santoon ni ko yow lañ bëgg nga émanciper jigéen ñi. bu njëkkoon tubaab yi dañ daan sol sol gu gudd boo seetaan film tubaab yu yàggee gis nañ sol robe yu gudd bay buubu ci suuf mhm. léegi nag kooku Chanel lañ ko nag na nga dindi li ci lii ci ñoom fexe ñuy col col gu bon kooku Chanel commencé créer ay mode gis nga booba euh, robb yi jipp sër yeeg yooyu da nga daan ñu mujj dagg ko mu yem ci yeel yi yeel yi feeñ coow li tàkk ci réew mi jigéen ñi sipp yi ñu sol seen yeel yaa ngi ni fàng ci biti laa la illallah àddina tukki na ñu sax ca rek di ko sol di ko sol ba mu mujj gi nit ñi miis ko après loolu defatul nit ñi efe ñu yokk ko ba ci oom yi nit ñi commencé coowal oom yi sipp bi fi mu yem gàtt na gàtt na ñu bés mu jigéen mis ñu miis ko ñu ne jigéen ñi nañ sol pantalon léegi góor ñi la woon léegi ñaawatul loolu boobu fàtte nañ boobu kenn waxatu ko jigéen ñi man parce que man maa ngi fàttaliku ñun ñu nekk xale di football jigéen sol romb ñu sol pantalon jean bu yëmbax ñu koy yuuxu caga mm-hmm. te pantalon jean bu yëmbax laa wax la moom la sol mm-hmm. c'est-à-dire ñu koy banaliser mm-hmm. muy dem au fur et à mesure ñu koy tàmm ñuy changer di changer ba mu jig ñu indi mini ba mu jig ñu ñu ne léegi nag ah iblis ni léegi na ba ci mini bi taxaw leen léegi nee leen jumbax aawut ñu ne jum daf ko bëgg a futti dafa bëgg futti jigéen ñi ba ñu set wecc muy waaw jumbax aawut ñu génnee jumbax ba mu ne taxawal foofu yéegal ca kaw neel neel paccal ñu ne génnee pàccal génnee ween yi léegi la moo fa des. léegi pàccal. Mm-hmm. jumbax aawut mini. gis nga presque jeex na. léegi dafay dox tuuti rek ba nit ñi gën a wu ci loolu. Mm-hmm. mu dindi lépp sànni léegi dañuy taxawaaloog. ah déjà am nañu am nañu tàmbale nudistes <laughs> yi. waaw nudistes yi mi ngi noonu. <laughs> déjà grave mooy nag li gën a grave mooy instant boobu ñu ne génération bii ñëwaat. Mm-hmm. ñoom am na benn appareil bu sauté ci seen cerveau yi maanaam la doon gis ñaawteef yàqu na. parce que xale boobu te loolu mooy lu doy waar. loolu mooy li gën a garaaw mooy lii lii bañ lii bañ ah, ñaawteef benn appareil bu nekk ci. bu nekk yow appareil bu dafay mel ni lakk na ci génération bi ñëw parce que ñoom dañoo judd fekk fi taatu neen léegi ñoom ñaawatu ci ñoom xam nga xale yi so yéen kese mm-hmm. romb la ak benn mm-hmm. gis ko mu mel mm-hmm. gis ñu dara pour ñoom du dara c'est normal yow boo taxul naan waaw kii li mu sol ñaaw na te pourtant dafa ñaaw loolu bu ñëw waa kii li mu sol ñooñu dañu naan waaw maxtaan mi wér na yow sa bopp la ñuy ko wérul te fekk na pourtant ça veut dire que nous sommes tous non jarul sax yegg foofu tey sama genre bi dañu jàpp ne kii daal est-ce que moom wér na <laughs> ndax yi muy kaas nii yëpp <laughs> voilà c'est ça pour yow li ngay kaas nii da bëri jot du lu bon ñoom pour ñoom maanaam bonatul ñoom ci ñoom ba yow nga war see sonn ñu war la jaral yow énergie bi yëpp exactement mënuñu la comprendre léegi lan moo tax yow am nga problème mu lii lu bon la te kooku moom mënu la comprendre ne moom lii lu bon la ba yow daf lay yërëm yow ci li miisal rek miisal rek dinaa leen dikkee kanam dinaa leen dikkee ginnaaw dinaa dikkee ndeyjoor dinaa leen dikkee càmmoñ mooy forme de combat yooyu yëpp nga xam ne seytaane da koy def pour mën a nit yàq ko spirituellement am na loo xam ne ay métaphysique la nit ko xam am loo xam ci image yi lay nekk film yi muy seetaan mm. parce que dañuy fexe ba dox sa diggante ak say doom récupérer leen ñoom di leen jàngal di leen yar te doo leen gis mm. sa doom yi nga ñoom ñoo leen di yar te yow doo leen gis ñoom parce que fexe yaa ngi toog sa doom yi ci biir yaa ngi toog sa biir doom yi da ngay dem ba borom kër gu nekk lu mu séq ak doomam eh, hmm. mu dem jeex na communication amatul créé nañu rupture hmm. léegi nag ñoom récupérer nit ñi moo tax dafa am benn kii bu ñuy wax le web a desservi l'humanité gis nga ñi créé les réseaux sociaux hmm. ñoom ñoo koy ñoo ko bannir ñi ko créé seen bopp ñoo ne réseaux sociaux yi moo gën a bon ci àddina ñoom seen i doom duñ ko laal école yi ñuy jàngee amul écran ñoom école yi seen doom yi jàngee voile d'or lañ ko tuddee mm-hmm. du ñu am télévision du ñu am ordinateur du ñu yor téléphone. Mm-hmm. ci tableau la ñuy jàngee créé bi parce que dañoo xam ne ñaaw téef ak mbon gi nekk ci réseaux sociaux yi dañu ko xam. dafa am ay image yoo xam ne doo ko gis xam nga nit ñaar la dafa am lu ñuy wax subconscience lan moo tax nit di baax lan moo tax nit di am imaan bu dul xalaat lan moo fa installé parce que da ngay gis koo xam ne sax xëy na xamul dara mais dafa gëm yàlla xamul lu yàlla. amul jàngul benn téere mais ngëm yàlla gi ci moom kenn du ko dindi lan moo tax loolu kon ngëm yàllaam tegul ci xam-xam tegul ci xalaat mais pas-pas la bu nekk ci xol gi leer la leer googu nag la ko fay installé ci xol ba nit mën a am iman pas-pas te gisul fenn yàlla iblis xam na lan la exactement léegi nag day def étude naka la ñuy dindee loolu coppati ko ba iman bi nekkoon ci moom disparaître muy utiliser nag ay métaphysique moo tax dina utiliser forme yëpp dina la musique musique boobu xam nga musique dafa nekk loo xam ne dafay egg foo xam ne seytaane mënu fa egg ci xol musique dafay egg ci xol foo xam ni seetaan wu jot wu fa léegi seytaane bu fa bëggee jot day ànd ak musique dugg fa day ànd ak musique ñëw bu def parce que bu nit ki di déglu musique son bi onde yooyu dafay nekk xam nga l'onde musique son onde la onde du dara dul benn perturbation des molécules dans l'espace benn ondulation mi ngi mel ne nga sànni xeer ci ndox ni muy defee ay ronron noonu di dem ni dem loolu rek mooy ondu moo waxee nii noonu tamit noonu lay defante du wër ba duñ ko dul gis parce que gaz la mhm. bii ci ndox la ndox moo gën a visible mais bii ci gaz la gaz su bët mënu ko gis moo tax doo ko gis mais même ondu yi la mhm. loolu nag bu ñëwee mooy yëngal membrane bi mhm. ci sa nopp bi mu tëgg ci benn l'enclume mu tëgg ci benn étrier tëg tëg mu yóbbu ko ci dans le cochlée le cochlée bi ci biir nopp bi la nekk benn yax bu ron la ni mel ni comme yaxu yéet bu ron yi am benn liquide bu ritax bu ca nekk am ay cellules yu ca nekk cellules sax ay karaw ñu leen di wax les ciliés onde yooyu bu ñëwee bu dalee ci karaw yooyu da koy vaseline nii karaw gi day yëngatu écrire maanaam message sonore boobu ci benn pulsion électromagnétique benn pulsion magnétique moom lay doon mu yóbbu ko ci cerveau bi cerveau bi capté onde yooyu sécréter ay liquide ay hormones nit ki soo gis ni dégg na tëng tëng tëng ça veut dire que am lan moo tax musique mën a jooyloo nit wala mën a bégloo nit wala mën a merloo nit lan moo tax kiy déglu alxuraan di jooy te xamul li muy wax. Mhm. parce que dafa am lu ñuy wax les métaphysiques. xam nga tey jii su ma dikkee rek ni ah sëñ Maxtaar man de bopp bi day metti mhm. nga am loo wax ëf bopp set. Mhm. sëñ bi loolu logiqueul logiquement da nga naan mais loolu mu mën a nekk mënul nekk parce que c'est ça la métaphysique mooy loo xam ne nekkal na dara te amut loolu benn contact loolu nag musique daf koy def ñoom xam na ko. moo tax yàlla ko wastaf si man istataata mm-hmm. gis nga bu bu musique bi ñëwee. moom seytaane day ànd ak onde yooyu. dugg ci nit ki nag fekk xol bi tijjeeku na comme fleur parce que nit buy déglu musique xol bi day tijjeeku bu defee seytaane day ànd ak onde yu ñëw dugg ci biir xol bi installé wu fa. Mm-hmm. man fa toog nag mën a fexe nag di fa dindi la fa doon yàlla. moo tax boo seetloo li ma lay wax na nga ko seetlu. Mm-hmm. déglukatu musique dëgg dëgg dëgg. doo ko gis mu am passion wu doo ko gis mukk mu nekk ko xam dafa ay yàlla bëgg yàlla xalaat non non parce que xol ba la ca doon yàlla musique da koy génnee. Mm-hmm. seytaane daf koy permettre mën a dugg ci xol bi installé wu donc dafay utiliser musique. Mm-hmm. dafay utiliser forme yëpp. Mm-hmm. dafay utiliser l' économie. dafay utiliser euh, image. parce que ñoom dañu gëm ni nit lu mu gis rek am na jeexit ci moom gis nga image boo gis. dafa am waxkat bu ne am na ñu ne sax xadis la mais euh, xabaar la rek. boo xam ne innal ghina yumbitu nifaqa fil qalb. wallaahi ne musique. ghina foofu musique nga koy firee. day saxal naa feq ci xol pour dëggal li nga wax noonu da koy saxal ci xol mu ne tudd yàlla dafay saxal ngëm yàlla ci xol dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. nga xam ne lu yàlla araamal rek mm-hmm. dafa am lu muy yàq sa appareil yooyu mu la conservé loo xam nga xam nga doomu aadama yàlla daf ko bind ci ñaari énergie la gis nga courant ni mu nekk plus moyenne lép loo gis mu am plus moyenne comme ni ko yàlla waxee góor ak jigéen bu la neexee plus moyenne nga tudd ko góor jigéen lépp ni ko defee noonu nit tamit ñaari mbir la ñaari énergie la plus mooy la mooy ruux gi ak nafs bi hmm. nafs bi nag hmm. moo tax mu mën a bëgg bëgg bëgg nit bëgg ay otoom jabaram doomam këram nangam nangam hmm. nafs la koy bëggee waaye nag yàlla moom ruux la koy bëggee mais ñoom ñaar nag ñoo daje ci benn place bi muy xol kon kon àddina ak yàlla dañuy daje ci benn place bu xol moo tax nit ci xol lay bëggee yàlla ci xol lay bëggee jabaram léegi ñaar yooyu moom la ñuy wax les deux nœuds de contraction des parois du cœur dafa nekk ñaari nóor ñaari neer yu jóge ci bii jóge ci nafs bi mhm. bii jóge ci ruux gi ñoom ñaari ñu daje ci xol bi ñoo tax cœur bi di pompe mhm. moom la ñuy wax les de contraction des parois du cœur ñi def kii médecine xam nañ loolu mhm. ñoo tax kër bi naan tëg tëg tëg di pompe xam nga appareil buy pompe boo gisee am na machine bu koy tourné mais xol ba nga juddoo ba ba ngay am quatre-vingt-dix ans mooy pompe buy pompe taxaw tëg ba quatre-vingt-dix ans musul taxaw benn seconde appareil boobu lan moo koy doxal <coughs> mooy ruux nit ak nafs léegi nag nit ki liy jógee ci moom ci yàlla ci jaamu yàlla yi comme ni nga ko waxee noonu mhm. ci ruux gi lay jaar mhm. ñëw ci xol bi tukkee ci moom ci àddina mhm. ci bi lay jaar ñëw ci xol bi ñaar yooyu xëccoo boobu nag moo fa nekk moo tax nag zikr boobu mu la wax nekk li nga xam dafay balee parasite yi nga xam ne ñoo nekk ci nafs bi ba nit ko noo nafs bi nekk nafs al mutma nekk nafs bu teey mu nekk nit ku dal am sérénité am sago bu fekkee nag tilim tilim yi yooyu la topp bàkkaari àddina yi ñuy jàkkaarloo guddeeg bëccëg yooyu ñëw moo tax image ak son nekk lu am importance te ñun gis nga tabax boo gis béy wu la romb oto bu jàll dem nit kuy dox dem am na benn jeexit bu mu def seew soit positif ou négatif ñoom nag loolu dañ ko gëm bu baax franc-maçon yi bëgg ay statues exactement parce que statues mhm. ñoom dañuy wax ni la Souleymane franc-maçon la mhm. statut mhm. euh, dafa nekk benn œuvre boo xam dafay permettre nit mu commencé di jaamu benn xërëm inconsciemment d' abord mhm. mais jëmmam présence am dafa am benn impact bu muy def ci yow mhm. gis nga bari na dëkk yoo xam ne def nañ fa ay ay statut waa dëkk ba ñuy xëy kaas ni fi jóge nañu daal statut bu mu fi ñëwee ba léegi dañu étouffé wu dañuy énervé dañuy stressé ay dëkk yoo xam ne statut bi dañ ko dañ ko fay jëlee gis nga mais kii tout Eiffel tout tour bi nekk Paris bañ ko fa bari na ñu tuxu ndax affaire bi moo leen doon gêné monument bi ci Wakam ba ñu ko fa defee am na ñu bari ñu tuxoo Wakam ñoo mm. xam dañu monument bi da leen di gêné am ñoo xam bu ñu gisee dañuy tiit seen fit bi day rëcc parce que ay barab la yoo xam ne barab yi doy waar la seen grande mosquée la. ah bien sûr. dañ li tax sooroor l'islam bëgg ko dafa am lu muy def ci xol. exactement. xool kaaba ga dafa am lu muy def ci xol. exactement. léegi xool kaaba ga la muy def effet ya muy sànni leer ci xol. Mm-hmm. xool ko soorool di sànni leer yooyu ci xol. Mm-hmm. mais noonu la noonu la euh, statue di sànni lëndëm ci xol. gis nga maxtaan wallaahi ndeysaan <laughs> daanaka benn affaire. Mm-hmm. gis nga jamra fañ ko daan sànni ca màkk. waaw. dañoo dindi obélisque ba fa nekkoon xam nga obélisque foo dem ci àddina bi am na ko obélisque bi nga gis nii Colobane mhm. ville boo dem ci monde bi am na obélisque mhm. obélisque signe maçon bu identique mhm. bu original bu ancestral firawna yi dañu amoon ay obélisque l'Égypte antique dañoo amoon ay obélisque ville ci àddina bi yëpp dafay am ay obélisque day représenté ak pay mais dafay nekk aw saaga boo xam si dafay mel ni seytaane da koy saaga léegi nag fa ñuy sànni jamra obélisque moo fa nekkoon ñu koy dóori xeer muy seytaane mm-hmm. mais tey dindi nañu obélisque boobu xam nga fu ñu ko mm-hmm. Mm-hmm. fa ngay ñaane foofu ñu def fa benn gaaluk noox moo fa nekk fañ doon sànni jamra gaaluk noox lañ fa def léegi jël obélisque bi ñu doon sànni xeet nga xam mooy seytaane yóbbu ko Arafat fa ngay ñaane c'est-à-dire liggéey yooyu la def te ñoom xam nañ ni la mi ngi am ay jeexit ci doomu aadama yoo xam ne duñ ci conscient loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a naqaree combattre naka ngay def ba jàkkoonte ni conscience nit ñi am ci conscience rek mooy meilleure solution bi ñu xam ne lii ñuy def lii lañ ci jublu Mhm. tey nag boo gisee àddina bi yàqu. Mhm. loolu la mooy communication bi. Mhm. moo yamatul ci benn limite. ñëpp ngi communiqué ñëpp ngi wax ñëpp a ngi joxalante. lépp banaliser nañ ko. lépp woyafal nañ ko lépp lu ñaawoon ñaawatul. am ñuy génne di ko défendre. am ñoo xam ñoo yor àddina bi di ko contrôler. di ko manipuler moom mooy les francs ñoom ñooy ñi nga xamante ni si ñoom ñooy ñooy manipuler àddina bi ñoo koy contrôler. te incha allahu euh, jëli leen fii si noonu du yomb. dëgg la. loolu moom du ñàkk nañ ko jagleel waxtaan spécial mbirum franc-maçonnerie ak seen euh, bagage yooyu nga xam ne ni tey lëndam rek lay lay sànni ci àdduna bi yàlla ñu yàlla sàmm euh, jullit bi daal feek mi ngi euh, wéttali ko yàlla di nangoo julli waxtu yu juróom di nangoo taqoo njàpp ubbi kaamil bi di xool di zikkar lu bari di jéem a charger leeram ni nga xamee la nit ki di sonnee ci biiram li ci jëm laa ilaha illa allah mm-hmm. cey la nit ki war di sonnee xolam mm-hmm. la nit ki war di sonnee xolam mm-hmm. la maam Cheikh Alhaji Abdul Aziz waxoon ne dikrul ilahi hiya lil qulubi quutu in lam taish bihi fa hiya tamuutu ne lu ne am na lu koy dundal mais xol fàttaliku yàlla di tudd yàlla mooy dundal xol ni nit ki di yeewoo yëg ni dafa soxla vitamine dafa soxla café pour nekk loolu la nit ki war a yëgee ne xolam dafa am lu mu soxla pour nekk gis nga yi ñu tasaare yi ñu tasaare yi ñu tasaare appareil yooyu ngay wax ñu bari seen appareil ngi yàqu seen appareil bi doon bañ lu bon mi ngi yàqu ñenn ñi seen appareil yàqu na ca ajag-jag moo tax bañatuñ lu bon déranger tu dara ñaawatul ay góor ji gën a seen vie privée la la ñuy wax seen non yooyu man du ma dugg ci vie privée jàmbur te l'islam yeneen bi waxoon na leen man raa minkum munkaran munkaran mm-hmm. mais kan ban appareil mën a détecté munkar mm-hmm. <laughs> bu paanee jeex na doo ko gisati man raa mm-hmm. léegi bu fekkee appareil bi fa am bët buy gis yeneen bi ne la ku gis léegi yow bët boobu patt na wala bët boobu gumba na man raa Mm-hmm. wa kayfa tara très important wa tara mm-hmm. koo xam ne bët yi gumba na nu muy gisee léegi nag kii nga xam ne yàlla nga ko dimbale moom mi ngi gis mm-hmm. kooku bu taxawee di wan ne lii dafa bon ke bu gisatul danaan ko waaye yow sax yaa sonn rek talal nag talal sa bopp talal sa jaboot nangam ak nangam jeex na jeex na mettre mettre mettre population mondiale ci benn pression ba nit ñi nekk ci fitna boo xam ne dootuñu tàll dul dund te am na yu gën a dangereux yu ñëw parce que te ji les nano technologies les nano Euh, particule ñëw na leen nano biologie c'est-à-dire ay atome yu tuuti yoo xam ne bët mënu koo gis te ay appareil la yoo xam ne dañ koy sol sa deret muy dox xam nga ñi ko bëgg def le kii boobu ñuy wax euh, pilule boobu ñuy wax le comment la mhm. puce érifidé benn puce la boo xam ne dafay toll ni pepp ceeb moom lañ bëggoon moom lañ bëgg imposer ni addina bi yëpp dañ koy piquer ñu am ko mhm. Obama moom la waxoon ni normalement avant réunion bi addina bi yëpp war nañu am puce boobu mhm.

bu ñu bëgg def benn sélection wàññi population mondiale bi 30 millions de africains yi ñoo xam ne moom la ñu bëgg a wàññi parce que africains yi dañoo bare ba mu bëgg amuñu benn njëriñ di taxawaalu dañ leen a war a wàññi bu boobaa dañuy kii rek ah am benn arrêt cardiaque crise cardiaque bu gaaw fat kenn xamul lan comme li nit ñi di deewee léegi rek mm-hmm. dee na ñu ñu avance jël li keneen fu fu toog dañ lay woo téléphone allo waaw wàññil sa suukar temps dafa ëpp allo moytu yow station bi mi ngi yéeg. Mhm. eh da nga am palu nangam nangam ay médecin maanaam hôpital yi dañuy tëj. Mhm. léegi lan mooy am dem pharmacie jënd garab utiliser. Mhm. parce que ñiy contrôler sa yaram ñu koy contrôler vingt quatre heures sur vingt quatre ñoom dañuy gis ne baax na. parce que euh, même am na américains yu bari yu ko def seen doom yi ay borom xaalis yi piqûre ko seen doom parce que dañuy am contrôle dañuy toog seen bureau di xam seen doom fu mu nekk ak ci lu mu nekk am ko ñoom finalement dañuy gis ne xam nga loolu c'est bien beau tu te dis que ne ah loolu kat baax na te kat moom nangam nangam mais en réalité ñoom noonu lañ koy contrôler moo tax tey jii. Mhm. àddina ñëpp dañ leen a teg ba daal. xaqiru zaman bi yàlla nañu yàlla suturaal incha allah benn force rek mm-hmm. moom moo ñu fi mën a dimbali mm-hmm. benn muslaay rek moo fi am mm-hmm. ñoom boobu la ñu ragal mooy sallallahu alayhi wa sallam wallahi allahuma salli ala sayidina muhammad wallahi loolu rek moo leen tremble mooy antivirus bi mooy antivirus bi <laughs> moo tax kooku rek loolu rek la ñoom bëgg a xeex mooy antivirus bi yàlla nañu yàlla xiir ci boppam rek moo ñuy dimbale moo tax ñu bëgg a éliminer yonent bi nag wallahi parce que gis nañu éliminer ak li mu indi lépp incha allah ak li mu indi lépp moom mooy ennemi ennemi àdduna bi tey waaye nañu woy rek. Mhm. di jafandu ci diine danañu dimbale lu baree baree baree bari. danañu dimbale te suñu appareil yooyu ñu koy vérifier ñu koy diagnostiquer di xool mbaa paanul. ku nekk rek na ci poser question. ci laay daanale jox la nga tëj. waxtu wi jeex na euh, sëñ kër Mbuub euh, cordinateur ànd sàmm jikko yi daf koy nettali lu baree baree bari te muy lu am solo. Mhm. mooy kilifa gi ko waxoon ne dafa am benn film buñ mosoon teg. Mhm. film bi naqari ko nee na mujj kaas ci dem kilifa yi ku nekk mu dem wax film bi film bi film bi nee na mu toogaat ay at yu limu ci ginnaaw bi mu toogaat ci saalam nii ñu tegaat même film bi ko naqari woon nee na mu toog seetaan ko ba mu jeex premier épisode bi deuxième bi ñëw mu seetaan ko ba mu jeex la ko naqare woon naqareetu ko mu yëg ne diggante boobu léegi am na lu fi ñàkk mi xamul lu mu <laughs> am na lum ñàkk ci diggante bi mais xamul lu mu nag lu taxoon lii naqari woon ko tey léegi naqareetu ko diggante bi am na lum fi ñàkk moom lay wax nag ñu bari nañu seetaat seen bopp mhm. mbaa seen appareil bi bañ lu bon paanul mhm. c'est important mhm. looy tàggatoo waxtu wi macha allah di ziar di ñaan ñëpp xam ne gis nga loolu moom mooy li fi nekk tey ji ñun ñëpp suñuy appareil yàqu ñuy jéem a bañ bañ lu xëy na léeg-léeg alxuraan moo lay delloowaat ni la ah xoolal li ñaaw de mm. nga soog a yii lii kat lii mm. waaye yow sa bopp personnellement yëgatoo dara bu ko defee loolu nag li ñu mm-hmm. xam ñoo lay parce que yonent bi moo ko waxoon ñu yaxu ju bu fekkee ni dikk fiikum te ma nekk seen biir fa mm-hmm. annaa ajujuhu duunakum nekk leen mm-hmm. da jàllay wax waaye ba na wa a défendre boppam donc leeru yonent bi mooy li nga xam ne ni ñoom moom la ñu artu nun mhm. moo ñu moo ñu mën a aar moo ñu mën a dimbali mhm. bu ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla nañu yàlla defal leeru yenente boobu noonu lee euh, moo nekkoon ci xoolu Seydina Omar ibn al-Khattab yenent bi ne bu sooboo mbedd saytaane jaar meneen mbedd ma ci des du Omar a mën a xeex du Omar a mën a jàmbaar du du Omar ay jàmbaar du Omar am fit mhm. ba tax saytaane ragal ko mais leeru xol bi la seytaane mënul woon a dégg ko seytaane leer rek ko leer rek ko të leer ko jaaxal kese du leneen wala nañu góorgóorlu ci di jaamu yàlla nañ ci góorgóorlu di ci sonn di jàng alquran di julli di zikkar di jéem a dundal sunu xol yi ci li ñu mën a dimbale la bokk njaboot gi tamit ñu fexe ba boo gisee am solo jàngal sa doom alquran yar ko ci diine am na yu bari yoo xam ne virus yi antivirus antivirus loolu mooy antivirus yi des antivirus antivirus yi la téere yàlla bi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu góorgóorlu ci bu baax a baax xaj ma jama jërëjëf kontaan nañu incha allah bii du nekk sunu mujj dajee ci axiru zaman euh, dinañ ko sàkkuwaat ci yow bu ñu fi yàlla bàyyee bàyyi la fi ndax li nga indi gis nañ ne euh, am na solo te doyaluñ ci maa ñu doon seetaan ñëpp tey am na yeneen i xam-xam yu dolleeku macha allah ci li ñu xamoon euh, te yaanu ko xamal kon li nga xam ne nii moom moo des soxlawaat nañ ko ci ñëw bu ci yàlla àndee ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm ba beneen jataay ci aaxiru zaman wa salaam xeek tànk bu gudd barke ooleek alal du tee xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj yaam